yàlla béy du jàmm. ça va bien. alors foo nekk ci wakaam. actuellement maa ngi ci école El Hadj Mamadou El Hadj Mamadou Diop. fii El Hadj Mbaye Diop. Mbaye pour moi <laughs> El Hadj Mbaye Diop laa nekk actuellement fi nga xam ne ne. am na onze bureau de vote yoo xam ne ne moo fi am mais jàppal ne ne ci onze yi daanaka euh, ñett rek ñoo démarré gum li nga xam ne ne mooy vote bi mm-hmm. retard bu énorme lañ am te xamaguñu lan moo waral boobu le mais jàppal na dem dugg bee bi ci ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi mooy di teg ay di affiché ak ay teg li nga xam ne ne mooy isoloir yeeg foofu la ñu toll avant loolu nag demoon nañ fi nga xam ne ne mooy école camp école camp nag ba tey ci wakaam la am na vingt trois bureau de vote foofu tamit nemeeku nañ fa li nga xam ne ne mooy retard boo xam ne ne am na ci démarrage bi bi waaye jàppal na ne ci côté sécurité takk der yi ñëpp ña nga fa ak leneen loo xam ne nemmeeku nañ ko fa mooy que port du masque bi moom se obligatoire ci boobu boobule centre ak fii ñu nekk tamit muy loo xam ne tamit gars yi na ne badine pas force de l'ordre ñooy contrôler lu ni mel beneen aspect boo xam ne tey nemmeeku nañ ko fii mooy jay euh, na ba ñi nga xam ne ne ñooy mag ñi ñoo gën a bëri actuellement ci li nga xam ne mooy buntu bureau de vote yi nga xam ne moo nekk fii ci Wakam ñaari école yi ñu jot a visité wii est-ce que tàmbali nañ sànq li ñu doon wax euh, euh, ñaxtu yi est-ce que yaa ngi gis électeurs yi di di di di di wax di ñaxtu. waaw lu ci fi comme fi ma nekk nii actuellement pas ay xanaa ñoom ñooy respecté ne euh, li nga xam ne mooy démarrage bi ni mu tardé loolu daal laa fi gis ne ne ndax ñoom boo xoolee paa yi koo ci intérêt da la naan six heures fii la ko fekk te il est presque neuf heures li nga xam na ne mooy vote bi démarré gu loolu daal laa gis ne ne ñu ngi koy naqarlu fi mu toll nii quoi ci côté li nga xam ne mooy vote bi actuellement. Amadou ci wàllu organisation est-ce que euh, joxe nañ du euh, jege explication pour expliquer maanaam euh, li waral retard bi. justement moom laa doon wax léegi ne problème mu interlocuteur ngay am koo ci wax rek ñi nga xam ne ne ñoom ñooy organiser naan may ñu may ñu le temps que ñu terminer mais jotaguñ ci kenn koo xam ne tey jii nii mën nañoo expliquer lan moo waral euh, li nga xam ne ne mooy vote bi am benn retard boo xam ne ne on peut dire que c'est énorme presque euh, on cinq minutes ba tey yenn bureau de vote yi nit ñaa ngi fa taxaw rang yu gudd yoo xam ne ne euh, daanaka jéggi na dayoo waaye vote bi démarré gul mais ñoom pour ñu teg leen gët fi mu toll nii may la temps sax expliquer lan moo ko waral doo ko xam daal ñi ngi nekk jàppal ne ne ñi ngi ñi ngi scotché ay liste ak ñii ñoom ña ngay gàddu isoloir yi ñii ña ngay gàddu li nga xam ne ne mooy euh, matériel électoral bi dugal ci fi nga xam ne ne moom mooy bureau yi Cheikh Tidiane Chérif bu nekkee mënuñu jot kenn ci euh, donc comité bi doon organiser donc <laughs> élection yi waaw nañ libéré Amadou <laughs> mu mu mu dem wéyal euh, liggéey bi mhm. nga ñu bàyyi la nga dem ndekki yi ndéewoon naa ba pare. ah mais eh. mais Samba <laughs> Wakam c'est Samba. Bathily Samba Bathily c'est ça. waaw euh, ñëwagul